leen ziyaara bu baax a baax di ziyaara yow mi nga xamante ni si yaa ngi toog jàkkaarloo seen télévision Touba tey nag dañoo dalal ki nga xam ne moom mooy Soxna Amsatou Soxna Amsatou ñu ngi lay nuyu aouzu billahi bismillahi inna waliyullah alhamdulillah yaa xayra munzilin waxama bi hasbala wa xayra munzilin haba bi basmala salli bi taslimin halaaman faaxa fii xel xixi wal xitti faaxa seydina muhammadin wal aali wa sahbihi kama bika stahaza min sheytaani wa nawwaral xulubakal awtaani wa fiihi baaraktu fi sahaaba wa alihi wa matari sahaaba duma nizaama ilaa saxi sihaabi hadan wala taruddan lahu yaa muzibal xalali siwaaka lam arju fi sirrin wa fi xalanin biaqi wajjika qaxli raja anili yaa rabbi kulli wa xutli bi rida xaradi wa maltamastu bi jaal muntaxa anili salli wa sallim xalal muxtaari fil kurama wa bashiran nabi nazmi afdalul suli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ndongali soxna Amta Sylla moo leen di ziar di leen màggal di tuub tey jégal bu wér di ànd ak mbégte mu rëy lool ci maanaam yëg-yëg gi ngeen am ak dundal gi ngeen di dundal bis ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllum euh, réseaux sociaux yeeg yaatal geeg ci àdduna gi àdduna bi yëpp fépp fu mu di nekk di mën a teewlu li nga xamante ni moo di bis xasida Touba Italie bi ah ñun de wax dëgg fa yàlla maam dañoo dañoo lool dañoo bég lool maam suñu mbégte dafa toll foo xamante ni maam nekkul lu ñuy xayma di wax ndax maam bisu xasida gi moom nekk na loo xamante ni tout yi waxuma la mag ñi rek waaye tout tànk yi nekk fii ci biir Italie rek dund gi ñu koy dund rek maam dañ koy waajal waaj goo xamante ni dafa ke xamul nu ngi koy waxee daal waaye ñoo ngi sant bu wér ndax maam dañuy sant ndax sëñ bi moo ñu moo dimbali ndax tey jii ku xam réew mi ñu nekk xam ni neex na nga yàqoo fi yomb na fee yàqoo lool waaye yomb na yit nga dund fi sëñ bi ku fi bëgg a baax rek dafay baax te gis nañu génération gu mujj gi maam sëñ daf leen a xëccal boppam ba fii ci Europe maam ndaw ñi ngay gis ñëpp dañoo daw wuy ji sëñ bi rawatina li nga xam ne moo ci xas day sëriñ Tuubaa yi kon xanaa ñun ñuy gën a soññ suñu bopp di gën a soññwaat suñu mbokk soxna yi suñu mbokk tutànk yi ñu gën a góorgóorlu xam ne xas day mooy lépp fépp fu ñuy màggalee xas da rek na ñoo def suñu kéemtutaay kàttan teew ca comme ni nga xamante ni ñu bëri moom la ñuy defee seen kéemtalaay kattan di dem ci ay yu mel ni ay Wally Seck ak yu demee noonu war nañoo def suñu kéemtalaay kattan di ñëw fii comme niñ ko gisee tey am na fédération ay tout tànk ay soxna yu jugee yoo xamante ni fii ba euh, France ñëw fii rek rien que pour bisu xasida bi kon loolu dalay woon ak yokkute gi nga xamante ni ak xëcc gi nga xamante ni sëñ bi mu ngi koy xëcc jëmale si boppam xanaa di ñaan yàlla suñu borom mu musal ñu lu dul sëñ Touba gën ñoo taw féexal gën ñoo aar gën ñoo sàmm ba bépp yéene bu ñu am ngir liggéeyal ko sëñ ñu mën koo mottali ci lu kawe suñu yort incha allahu rabbi xam naa may wàcce kàddu yi foofu rek ndax maam dañoo dañoo tële wax waaw wax moom dañ ko mënul. soxna am sato yaakaar naa gis na li nga xamante ni si noonu na waxtaane muy wax ju am solo lool macha allah yaakaar naa li ñuy tuut tuut tuut tànk yéen a ngi yéen a ngi béy seen wax bu baax a baax ci li nga xamante ni si moom mooy xasida gi waaye nag di gëstu sëñ bi di di di di di xeeñtu sëñ bi def ko si seen bopp lan nga ñu mën a wax ci li nga xamante ni si xam naa kàddu yi di di ñu mën a liwaat tuuti sax ñu xaw a li waxtaan bi rek tey ñu doon ay ndaw nga gis soxna yi fi nekk mën naa dem ki ci gën a mag sax man euh, amul vingt ans wala bu amee quinze ans ci layam waaye bàyyi lépp nekk ci sëñ bi ñëw ci liggéey bi taluñu solu taluñu dara ñëw ci xasida yi lan ngay wax maanaam soxna yooyu. maam tey ku gis bis bi rek xam ni tout tànk yi ñoo fi ëpp sax ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy kilifa yi ndax liggéey liggéeyal Sëñ Tuubaa bi mën naa ni tout tànk yi ñoo ko yor léegi ndax ñoom ñoo ko war a doxal jëmale jëmale ko kanam. ku xool tey jii nii maam wàññi rek tout tànk yee fa fes ñoo yor liggéey bi ñoo yor lépp durusum xasida bi tamit. tout tànk yi ñu ngi ci kaw nekk si lim bi ci suba ba léegi ñoo ngi wàcc ay kaamine di durus ay xasida xasida xasida bu nekk ñoo ngi ciy durus ñoo ngi siy góorgóorlu bu baax a baax baax baax te it am nañ ay tuutànk yoo xamante ni ñi ngi dox ci wàllum exposition maanaam gën a xamal sëñ bi nasaraan si ñu gën a xam kan mooy sëñ Touba te loolu gis nañ ni jamono ji ñu toll ñoo ngi ciy def ay jéego yu jéego yu yaatu ndax ñoo ngi def loo xamante ne exposition lam dañ koy traduire en langue italien en langue français en langue anglais ba si xas xasida sëñ Touba yi ñu ngi koy gëstu di traduire gën a xamal li nga xamante ni moo di moo moo di ñàngalem sëñ ci fi nga xamante ni moo di réewum nasaraan si boo xoolee lu si mel ne ay xasida yi nga xamante ni sëñ bi des daan jàngale maam nekkum nit ki maam éducation li ñuy wax éducation ñu ngi si ñu ngi siy dox bu baax a baax baax te fédération yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi gën a bëri fu ñu toll ñi ngi gën a yaatal fédération yi nga ni ñi ngi jéem dajale tout tànk yëpp ñu dox ci gën a xamal sëñ bi ñi nga xamante ni ñoo di nasaraan si loolu moom ñoo ñoo ngi koy liggéey te ñoo ngi ñaan yàlla mu gën a jëm kanam daal incha allah ñu ngi ñaan yàlla mu gën a jëm kanam amin ci bàkk sëñ ba waaye ba tey rek soxna Amsatou ñu ngi lay nuyu di la wax ni kàddu yi macha allah di la ñaanal Serigne Touba sàmmal la boppam ba li nga xamante ni si moom ngay wut ci lii muy muy ci xasida bi di ci sëñ bi nga am si lu suuf sa njortu euh, kon lii lañ leen indi doon ci waxtaan ci soxna Amsatou ñu ngi leen di demaatal xoolaatal leen suñu beneen mbokku taalibe boo xamante ni si kuy dund sëñ bi la ñu waxtaan ak ñoom ci ta ci xasida yi waaye wax leen li nga xamante ni si loolu la xalaat ci xasida salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ziyaar suñu mbokk taalibe yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo seen télévision bi yàjj bi Touba Monde bi ba tey rek ni leen ko waxee woon ñu ngi ci guddi xasida yi jàkkaarloo ki nga xamante ni si moom mooy sëñ uh, Ibou bu bu Serigne Saliou Mbacké di la jox kàddu yi rek uh, nga daal di nuyoo. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. maha balaa yi wa maha amraadi wa birri daa tan xaadul yi ahraadi jërëjëfati sëriñ Saliou mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ndokkale ci bis bu tedd bi nga xam ni moo ñu fi boole di bisub xasida yi bisu xasida nag buñ ko waxee xel yëpp day dem ci jëmuy gi tedd da di Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul mi nga xam ni tey moo fi boole ndaw yi yëpp mag góor ñëpp ñoo fi daje ngir jëmm yi sëriñ bi xasida yi nag daa nekk loo xam ni ñun ndaw ñi nga xam ni ñoo ci ne te jublu ko ndax gen nafayn bi laa dara din maanaam njëriñ loo xam ni antoog mooy sëriñ bi te xasida yi nga xam ne tey ñun ñi nga xam ni ne it ku nekk nag sa bopp nga xam ndax sëriñ bi bu nee bu ëllëgee yomel xiyaam wàlliwu yàlla lu mu gaaw gaaw gaaw su ñëwee suñ ko si kanam suñ borom fa may fekk kon loolu war naa dal suñu xel ci sëriñ bi xam naa bu fekkee am na ay kàddu rek wala ay laaj yoo xam ne mënees na koo kii rek ñu mën see tontu bisimilah. waaw sëñ Ibou léegi ñu gis ne xasida yi ah. waxuma la mag ñi sax waaye tout tànk yi léegi ñoo mën na ne du ne ñoom sax lan naan ñoo ko gën a bëgg ñi nga xamante ni si mooy ñi ngeen féete mag maanaam bu ne bëgg tout tànk yëpp léegi ñëw nañ dugg si léegi si xasida gi nga gis ni léegi xasida nu nekk lañ koy yoxee xasida fu ne lañ koy jàng xasida ci nu nekk lañ koy liiwee nan nga nuy mën a wax ci li nga xamante ni si nan lañ ko nan nga nga si mën a laabiiree xale yi ak ñi nga xam ne dañ koy jàng ba ba lii leen ci waaw soxna Fatou loolu moom daanaka tontu li mën naa gàtt ndax euh, xasida yi ginnaaw bi ko sëñ bi bindee fonk gi ak jox maanaam àq gi daa daa war maanaam nekkul ni looy xam da nga koy gàddu fu ne nga jëm ak moom looy jël la toog ak moom si bërëb jàng ko jàng mu sell jox ko addi sëriñ Touba loolu képp moo lay mën a defar ndax mag ñi nga xam ne ñoo leen ànd ak sëriñ bi dañ daan toog di jàng ay junni maraaxib te kenn du leen dégg ñun nag daanaka jamono jiñ toll ku ci yor benn ñaar daan daal di commencé yéeg des fois nga gis ñuy jàng xasida coow lu bëri kenn mënta noppi te xamuñu loolu lu la mën a gaañ la ndax bis si si njaareem sëriñ bi toog na mag ñi di jàng ñuy jàng inna allaha mahana muy ahbabtu ñu koy jàng di ko jàng ba mu jeex sëriñ bi daal gi teg daan ni laa ilaha illa allah mooy xasida lillahi rabbilazi xad jaadali bi huda kulli xadiman liman taqdimuhu huhida bi ñu koy jàng di ko jàng di ko jàng ba àgg ci allahu rabbun jalilun malikun ahadun barrun karimun latifun lam yazal samada sëñ bi daf ñu waxaat leen ko ñu bamtu ko di ko bamtu ba muy juróom benn yoon mu ne est-ce que xam ngeen li ngeen def na ngeen la ngeen ci mën a am ñu ne ko mbàkke di ngeen ne ndigal li la ak bëgg gi moo ñu ci ba mu ne ah lii di doy na waar daane xam ngeen luy am ñanaaw ñu ne ko waaw mu ne leen dunq yeeg laaf yi est-ce que ñoo lu ne mën na cee ànd mën na cee tàggaliko ak moromam ñu ne ko dee mu ne ko noonu la demee boobu am na mag am na mag mu toog nii rek am ku ñëw di ko jamono yi sëñ bi ne ko bàyyi leen bi ngay jàng sama xasida yi ngeen ciy boole ay caaxaan ku ci moytuwul li danañ la bërëng dugal ci safara kon xasida yi du lay gàddu di yóbbu fenn maanaam looy jël la rek toog moom comme ni ko sëñ Gana Messere di waxee rek yaa feebar doomu hôpital ñu bindal la ordonnance da nga koy naan noppi rek jërëjëf. waaw comme ni ko sëñ euh, Ibou Laye waxee mu Serigne Saliou Mbacke kàddu yi rafet na lool macha allah euh, yaakaar naa euh, dañ lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo. waaw tàggatoo gi nag moom. mooy sant ci sëriñ Touba rek ndax it defal nañu loo xam ni ku dul moom mënaluñu ko waaw ku dul Serigne Touba mënaluñu ko comme li ma wax sànq rek koo xam ne nee na la bu ëllëgee yamal xëyam wàllu yu yëpp buñ dajaloo suñ borom lu ñu gaaw gaaw gaaw buñ ñëwee fan la may fekk kon suñu xel mën naa dal bu baax di leen sant bu baax di ñaan télé bi gën a jëm kanam liggéey bi gën a yokk poste bi gën a jëm kanam barki sëriñ Saliou amiin yaa rabbal aalamiin ñu ngi lay nuyu yow tamit alhamdulilahi rabbil aalamiin di sant Serigne Touba it bi ñu jàkkaarloog yow di waxtaan waxtaan bi nga xamante ni si mooy waxtaanu xasida gi comme niñ leen ko waxee dinañ leen demaatal si suñu beneen bokk taalibe jox ko suñu micro laaj ko li nga xam ne moom la yëg ci guddi gi nga xam ne mooy guddi gu tedd gi di guddi xasida yi kon ñu ngi leen di jox dig daje léegi incha allah ci beneen suñu mbokk taalibe salaamaaleykum wa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 si waa ahlu xasida suñuy mag ñoo xamante ni si suñuy jëwri ak ñoo xamante ni si suñuy maanaam suñuy man nañ ne suñuy kilifa leen ci yoon bi bu ci mel ni sama sëriñ sëñ Assane Salam ñu bëgg a moom waxtaan moom wax ñu li nga xamante ni si moom la xam ci guddi xasida yi salaamaaleykum wa salaam wa rahmatulah. ñu lay ñu ngi lay sant bu baax a baax di delloo nuyoo beeg ziar bi soxna Fatou di rafetlu bu baax a baax tamit jotaay bi nga xamante ne bi seq nañ ko génn. te dara warul ko lu dul bisub Serigne Touba bi muy yéene joo xamante ni bien ni àdduna si sépp am nañ ko ci ba ngeen ko dalee waaj ba ni bis bi amee tey ndaxte lu tax ma ni muy yéene ju àdduna bi yëpp amoon mooy dañoo amoon suñu mbokk taalibe yoo xamante ne bi amoon nañ ak yéene lool pour teew fii te yàlla sa borom dogalu ko ñu amee gàllankoor waaw kon nag dëgg yàlla suñ teewaay fii ñu jàkkaarlu ngeen dañ ciy sant bu baax a baax. tey nuyu nag mbokki taalibe yi ñu fekk ñëpp tam. ah alhamdulilah comme ni mu ko waxee yaakaar naa ni alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Assane tey ñu gis guddi xasida yi nga xamante ni si man nañ ne Europe ñi fi nekk ñëpp lii di Espagne fii di Sénégal ñëpp ñëw nañ teewee ko di màggal xasida gi waaye ñëw tamit di saafante ak ñi nga xamante ni si ñoom ñooy seen bokk taalibe lan nga nu mën a wax ci guddi gi ak lan nga see yëg-yëg. waaw yëg-yëg bi ñu ci am mooy yëg-yëg bi nga xamante ne bii ne mbokk taalibe yëpp moom lañ ci am. ba tax ñu dajalee leen fii ndax boo xoolee wax dëgg yàlla mbooloo mi fii nekk ñëpp bu dul saafonte bi nga xamante ne bii ne nga ko fa gis sa mbokk moo gëj a gis rek bu dul woon bisu xasee bi nu fi daje loolu rek maanaam dafa am beneen mbir bu muy def ci ci doomu aadama bi waxuma laa nag bi ne bisu Serigne Touba di bisu xasida ñun ñii di waa Angleterre di waa France di waa Espagne ku ci nekk yëg-yëg boobu nga am comme ni ma ko waxee sànq rek ba bis bi ba léegi. ku ci nekk am nga ci yéene ji ci fees lool duñ def moom lu dul moom wax dëgg yàlla di ñaan sama borom defal ñu xéewal ñu koy yàgg fekk fekke saa su nekk di leen fi fekk tamit nag di ànd ak yéen bi ni ngeen ko bëggee ni gën a sell. ni nga ko waxee ñun waa Angleterre ñu gis ni léegi xasida yi mën nañ ne wër na àdduna bi yëpp nga jóge fii ba Angleterre bi nga ñëwee gis fii ni mu mel mu mel ne mën nañ sax comme Touba ban yëg-yëg nga am tamit ban ban jàngat nga cee am ak lan la la dolli. waaw dolliwaat nañu laxasaay bu baax a baax. ndaxte lu mel nii ñoo ngi koy yëngu ci Angleterre waaye nag mën naa ni leen ko fay yëngu ak ni mu mel nii moom bokkul da nga naan sax moom ci beneen réew nga nekk waa xëy na tamit da ci am benn jeexital bu ci am boo xam ne xëy na la mbooloo ma xaw a néew foofu ca wet ga ci côté Angleterre xëy na looloo tax buñ ko organiser mbooloo mi du takkoon nii waaw waaye wax dëgg yàlla yéen a ji yi am bépp mu murit am ko ci euh, yéen yéen ñi nekk itali boobu bépp murit am ko ci ñun loolu lañ ci am bëggoon nag wax dëgg yàlla ngeen wax ko ba fépp ba ci seen Touba euh, kii bii ngeen nekk. Touba monde bi uh-huh. ñu gën ñoo yaatale ne waa Angleterre wax dëgg yàlla ñoo ngi taataan di dagaan bu baax a baax uh-huh. ba fuñ fu fu ngeen nekk rek fu ngeen di yëngu. ngeen xam le ne ngeen dugal te ne am nay murid saarix yu nekk Angleterre bëgg bis bu mel nii te buñ ko amee it woo leen te ngeen ñëw rafetal na ko comme comme ni ngeen ko defee saa su nekk. Ah, comme ni mu ko waxee yaakaar naa ni dégg nañ ko waa Touba Angleterre di ñaan tamit ngeen di ko teewee ay déwéni déwén dund ñu nit bañ leen di fekk Angleterre di def bis bi nga xamante ni si moom mooy suy kon ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la wax rek nga tàggoo sëñ Assane. waaw kon di sant yàlla bu baax di gërëm yonent bi sant Sëriñ Tuubaa bu baax a moom mi ñu defal xéewal bañ tamit ñëw di di teew si lii ndaxte nee naa moom bis moom wax dëgg yàlla su dul woon am ci fii nii ñu fiy daje di saafante di di liggéeyal Sëñ Tuubaa ñun xawma fu ñu jëm li may wax mbokku taalibe yi saa su nekk rek mën naa ni lépp lu nooy ci Europe gi fii ñu nekk nii liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi moo moom moo ko waral li ñu fi def nii lépp di ko xepp xëy na duñ gis résultat bi nii ci saa saase yi de waaye lam ñuy jural ñun lu dawe lu lu kéemaan lu kawe njort la kon nag maa ngi ciy ñaaxaat suñu mbokku taalibe yëpp mbokku jullit yëpp maanaam ñuy gën di jàppaat liggéey Serigne Touba bi bisimilah ñu koy bañ di sobantal mukk di ci gën a demaat ak Pastef comme ni ñu koy defee di nuy nuyuwaat yéen ñëpp tamit bu baax a baax ñu ngi jéggul nag lépp lu dëng ci kàddu yi ñàkk bañ a mën a wax la rek jërëjëf soxna si. Fall dégg nañ sëñ Assane ni nga ko waxee kon dañuy demaat xooliwaat suñu yeneen mbokk taalibe ñëw waxtaan ak yéen indil leen li nga xamante ni si na mag ñi daan dundee xasida yi nekkoon ko woon ku tedd kooku muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dañuy dem rek xoolaat suñu beneen mbokk taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaha comme niñ lañ dinañ leen laaj seen xalaat ci guddi xasida yi waaye tamit di ci dalal ku ci mel ni Serigne Fallou Akassa ñëw ci bis bi euh, yaakaar naa euh, kenn du ko présenté ñu bàyyi ko rek moo wax li nga xam ni moom mooy xalaatam si bis bi salaamaaleykum Serigne Fallou Akassa. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu soxna Fatou ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare bu baax a baax di nuyu mbokkum taalibe yi nga xam ne daje nañu ñoom yëpp ci bis bi te suñ Tuubaa rek tax na yooyu jóg di siyaare bu baax suñ mbokkum di siyaarewaat bu baax a baax yéen mbokkum waa Touba Monde TV ñëpp féete fii ci Italie ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax ñu leen nuyu bu baax baax wax dëgg yàlla ñu ngi leen di siyaare bu baax waaw comme ni mu ko waxee rek alhamdulilah sëñ Fallou ñu gis ni yow dangay faral di jàng ci xasida yi macha allah te heure boo jàngee rek xool yëpp maanaam daal di tooy ndax ki nga xamante ni si mooy jëmmi ku tedd ki léegi sëñ Fallou ñu nga nga ñëw tey ci bis bi nga gis macha allah xasida yi tey ni muy jollee nit ñiy jàng xasida di jàng alquran koo gis rek xam ni fii kat tey jotaayu ku tedd ki la ban tey lan tey noo ko yëgee. waaw moom daal li ko yëgee mooy maanaam xol yëpp tooy nañ te fees del teg ca. ndax maanaam lu waaye mën a am it am suñ tubaa ko dàq ak lu mu mën a doon nag ndax la ko waral mooy fi ñu doon nii ñi fi ñëw ñëpp dañoo ñëw ci ndigalal sëriñ bi rek ndax suñ tubaa lii képp la digle te lii ñu nekk nii mooy ndigalul yàlla suñ borom ndax suñ borom ñu digal moo ñuy jàng alxuraan yi te ni ci xisaayit yi tey tuubal yàlla tey julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñ tubaa loolu ñu digal te tey ci lañu yendu ci la ñu nekk xaside yooyu nga wax nag ñun moom mooy suñu liggéey am mooy suñu lépp yi nag te moo ñu tax a jógee Angleterre ñëw ba fii tii Touba fekkoon laneen lañ fiy woote lu dul loolu duñ fi teg suñu tànk ndax wajtani bi ma jaali sa saqaawa jataay way di fu ñu nekk dañ koy daal di moytandiku dañoo jàpp ne maanaam fii nii dañ fee ñëw pour taataan ngërëmal yàlla suñu borom taataan fi ngërëmal yonente bi ak ngërëmal suñu Touba loolu daal xam naa moo ñu indi fii nii loolu indi fii ba tax na comme dégg ni ko waxee macha allah sëñ Fallou xam naa dañuy bàyyi dañ lay bàyyi rek ñu ci xaside gi macha allah. أروم رضا من كل يا دهر يقلو لأسناب من قلبي حواء ويملأ إلا حردا عن شعب النبي قائدا لهم سرور متى يندق بالمدهن مدون مترو أي مديا دارين سب النفاق إلهي لخيري كل من ليس يبرم أبا الله إلى كونه أبا الله أبا الله أبا الله أبا الله إلى كونه أبا الله إلى كونه أبا الله إلى كونه macha allah macha allah yaakaar naa gis ngeen li nga xamante ni si foofu la ñëw ak ñun ci xasida kon dañ koy bàyyi rek mu daal di tàggatoo daal ñuy soñu tuuti ñun ñi nga xamante ni si ay tout tànk lan bëgg sëñ bi tey dox ci xasida yi ay ci sëñ Fall looy tàggu waaw soñ léegi xanaa kay dañ koy tàmbalee suñu bopp rek ndax maanaam ñuy moytandiku lu bari rek te góor waat su baax a baax suñu diggante ak doomu aadama yi moo jiitu suñu diggante ak sëriñ bi ndax suñu digganteeg sëriñ bi kat sori na lool ndax doomu aadama yi ñoo ñu gën a jege sëriñ bi jamono ji ñu toll nii ndax bu ñu geesoo yéen la ñu gis waaye fu ñu jaaxlee rek moom yéen la ñu gis kon maanaam bu ñu yemee ci yéen rek la Sëriñ Saliou Mbacke waxoon rek kenn ku ci nekk maanaam aajoom bu ko amee rek bu duggoo ci mbokkum taalibe mën na koo saafara kon bu ñu jàppante suñu biir góor góorgóor day dimbalante ngir jëm yàlla te lu waaye yéene boppam mu ko yéene moromam rek am nañu rafet njort gu baax a baax ne lépp luñ bëgg rek suñu borom mën nañu ko defal ci ni mu gënee suñ borom moom ni mu ñu bindee noonu la ñu wuutalee te jukki yi dañoo wuute ndax moo ne annaas muxtalifuna waxaat innama amruhu izaa araada shay'an an yaqul lahu kun fayakun moo xool lu ko soob rek mu def ko ci ab jaam kon moom da koo xool lu ko soob rek mu def ko ci ñun waaye ñun nag maanaam li ñu war a góorgóorlu moo ilaa ma atallaahu bi xal sali bi ñu jéem a raxasu xol yi ba mu seet wecci te jéem a góorgóorlu baax suñu diggante ak yàlla suñu borom ndax jàpp nañ ne loolu képp daal moo ñuy dimbali wax dëgg yàlla waaw comme ni mu ko waxee loolu moom moom mu ñu dimbali kon sant nañ yàlla bi nga xamante ni si boole nañu si njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul waaye nag comme ni ñu leen ko waxee rek ànd seen télévision Touba Monde bi tey dinañ leen demal li nga xamante ni si moom mooy fépp fu mbokk taalibe yi nekk dinañ leen demal ci soxna yi dinañ leen wëral fi nga xamante ni si waa ko Cheikhul Xadim yaa ngi fa ñu jox leen suñu micro laaj leen li nga xam ne loolu la ñu sentir ci guddi xasida gi dinañ ñu joxaat leen di daje ci beneen waxtaan incha allah beneen interview boo xam ne dinañ ko sekkaat ak suñu beneen mbokk taalibe asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. haajat xasaayidi xuluubal hamala